Mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. xam nga inna allaha ala kulli qadir mm. yàlla mm. mun na lépp dama koy waxaat mm-hmm. ren de laay doog a sànni carte su ma juddoog tey élection yi passé laay doog a voté mm. billaahi wallahi watallaahi musuma voté bu ma juddoog tey musuma politique li ci Macky Sall amakas néew sax ci man mbindeef mosu ko am ci man musuma sànnil kenn carte élection yi sànnil naa Macky Sall carte guléet maa ngi koy doog a def moom laa njëkk sànni carte sama àddina Macky moo amoon chance ci man ma gis ne xëy na mer mer ga ma mer ba ñu téye passeport am looloo ma ci dugal ne du génn réew mi boobu dafa jot ak Ablaye Wade yaakaar naa ma dégg ci rajo yi ñu naan tey nañu kayitam dootul génn man na waaye ma mer nag ma ne lu tax ñu koy def loolu lu tax ñu koy interdit pour mu génne réew mi lu tax mais euh, génne nañ ko foofu nañ ko bàyyi rek lu tax ñuy téye ay kayitam su ma bëggee dem fenn nag ci laa mer nag yàlla won ma nag ay mbiram mu gis ko mu dugg ci palais bi am na keneen am na xarit bu ñuul ko am mbët koo xam ne da koo bëgg moom la àndal wii di déggu ca ginnaaw pale ba dajji bunt bi yëkkati bunt bi Ablaye Wade mi ngi toog ci fa tey mais dafa wane ginnaaw ma ne allahu akbar yii Ablaye Wade daf fi jóge maire moo ma booleeg Macky Sall li ñu téye passeport am moo ma booleeg Macky Sall ma gis ay mbiram ci laa génn nag benn bis ma gis euh, sunu waa kër koñ Mm-hmm. Assane Sylla ak Samba Ndiaye. Mm-hmm. ñu ngi takk ay écharpe Macky mm-hmm. euh, euh, taxaw euh, di di di ko di ko teeru maa ngi sol temps yooyu kii lay sol percal bu weex dama génn wax fii ana seen kilifa Assane Sylla daal may xool ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko an ana kilifa gi mu ne am na ku ma jiitu mu ngi nii Samba Ndiaye ñu yéeg fi ma dëkk boobu sama saal amul sax seize armoire kese fa nekk ci laa ne xaar leen ma ñëw dugg sama ni génn kaamil alquran ne leen billaahi wallaahi watallaahi kii ngeen topp dina doon président Assane ci laa ngi dund Samba Ndiaye mi ngi dund léegi Samba Ndiaye député la Assane si la xaw ma lan la ko Macky fal xam xamalu ma leen dara ci ne ma a ma leen jàpp leen far yàlla mi nga xam ne dara tawu ko mu am sëriñ bu génn àddina yaakaar naa Chérif Ousseynou Laay la euh, Macky Sall di euh, ñëw di ko di ko ziyaar si ñu am ku mu am ku ma woo ne ma président day ñëw boobu président lañ koy woowee te boobu nekkagul président gaajo la mu ma président day ñëw ma sol benn robe jasinaire euh, basin bu bu ñuul laa dem taxaw di reyante gàddu koor yi di ma bëmax mm-hmm. rek ma ne xaaral ma yuuxu su ma yuuxoo dinañ ma bu ko déggee dina wax ñu bàyyi ma ma daal di yuuxu ne bàyyi leen ma day nekk président day nekk président mu ne tëll ci néeg bi di génn pour taxaw fii ñu fii nga koy joxe micro rek mm-hmm. ma yuuxu ne ko tu seras le quatrième président yow yaay doone beneen président bu Abdoulaye Wade yaay taxaw rek mu daan ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko mag sal ku baax daay téye sama ñaari loxo ne ma yow la kan ma ne ko man la selbe Ndom di nga doon président mm-hmm. ab Wade bu fi jógee yaay toog mu làmb poosam te billaahi wallahi watallaahi boobu aw ma sax lu ma lekk maag samay doom fukk ak juróom laa yore sama loxo xaw ma fukki dërëm maa ngi ngëpp nii sama loxo mu téye sama ñaari loxo làmb poosam boobu sama yaram tàng na ma daa ne ko ne yaay doon président bugg maa may ma ko déedéet bugg ma dara te boobu fukk ak laa sama loxo xaw ma fukki dërëm samay doom amuñu lu ñu lu ñu reere ba yàlla def ko président avant muy nekk président Assane la daf ma doon jox ay carte APR su ma ñëwee damay dox sol sama daal ci boobu aw ma aw ma tàll bu gudd daal ci laa am moom laay sol ñëw ba ci sa kër ne la euh, doo doo doo doo jënd ci carte yi APR la de Macky Sall la mooy nekk président te bu nekkee président dina dina dina dina defar réew mi nga ne ma ma ne la ñaar fukk dong la wóolu nga ma boobu ñu bëri ci koñ bi yëmbaru dëbboon dañ ne woon damaa dof parce que li ma doon wax dafa leen a dépassé ci jàll kuriñ bi dama leen daan fekk ñu toog xale yu góor yi ñoom dañ dañ doon toog foofu ma ne leen Macky Sall mooy nekk président ñu ne ma du dëgg toppal fee waay ma ne leen Balla Gaye dina daan Modou ñu ne ma waxu dëgg waay koñ bi genn wàll gi yëpp am na si ñoo xam ne dañ ma doon xool ni duñ ma wax dara waaye am na si sax samay dëkkandoo yoo xam ne dañ ne woon kii dafa dof ndax li muy wax Macky Sall dina nekk président Balla Gaye dina daan Yékini yow toppal fee ma ne baax na damay taxaw billaahi wallaahi watallaahi aalu daal di dem bàyyi leen soo ma joxee sa cent franc ma bind sa tur bind sa sant jël sa date de naissance ñëw recopier delloo la sa identité jox la nga jox ma ñaar fukk mu wër ba sonn loolu taxut ma doon APR mission la bu ma waroon doxal Macky ma dox ko yàlla moo moo defoon loolu troisième mandat bi ñuy wax nag li tax ma ne dina am troisième mandat Macky Sall mayu portable bi gën a yomb asimaat di ma may kër maa ngi jàmbat oto boobu ba tey ku ne ñaan naa la oto Macky Sall musuma may oto Macky xam na ne yonent bi rekk laa bëgg musuma may biyee makka kon taxaw ma ne dina am nangam parce que daf maa may nangam man du ma dóorukat lu am maa ko liggéey su ma doon dóorukat taxaw naa kër ministre yëpp bu dee cent mille franc lañ may may sax dinañ ma ko may kenn du ma sànni kenn du ma neenaan kenn du ma dàq ndax xam nañ man je suis digne xaw ma lañ ko si suis fier de moi macha allah taaliba si Tuubaa laa gëm naa sama bopp dóor waar benn ministre du ne taxaw naa seen seen seen buntu këram mm-hmm. amut ñi ma ñaan oto yëpp amul kenn ku ma taxaw sa kër gaari sama kalandoo ne la may ma oto mm-hmm. damay wax rek ci télé bi hasardement bu leen neexee buñ ma may duñ ma may sax xam naa ne duñ ma may waaye yàlla dafa ne boo amee soxla wax ko sa mbokkum jullit mm-hmm. ndax damay bëgg di dem Touba damay bëgg di dem Tiwaawan damay bëgg di dem Njaasaan damay bëgg dem ci kulu kër diine bu xewal damay fee bëgg a dem même su ma amoon lu ma participer it maanaam ma ñëw taxaw ziar ut fa tuyaaba ut fa xéewal ñibbisi loolu loolu laay doyoo tamit. déedéet déedéet diggante wu ma Macky Sall de du ma bëgg lu ma lu neex nit ñi mm-hmm. wala ma bëgg bës ba naan diggantewu ma Macky Sall ku lu diggantewu ma ci kenn kenn kenn kenn laay diggantewul ci gouvernement Macky Sall am naa ci benn xarit daal mm-hmm. monsieur le maire mm-hmm. kooku ku baax la ci man mm-hmm. kooku ku baax la ci man kenn daal laa ci am mu nekk monsieur le maire fekk na ma barabu sëñ Tuubaa dama daan digganteeg moom rek waaye musuma koo gis bi mu nemee kan mooy sa xarit fii ci dakaar kan kan mooy sa xarit ma daan ne ko yuuxu fekk maa ngi réclamé ma ne ko monsieur le maire moom la xaw ma ko woon mosuma koo gis te jii bu ñu dajeeg ma dajeeg moom ci mbedd xaw ma ko mënuma koo xàmmee kon maanaam su may wax ci Macky Sall du dara lu mu ma defal moo tax may wax naan dina am troisième mandat dina am deuxième mandaa damaa waxoon dina am deuxième mandat sëriñ ci taxaw fii sotti suma buntu kër gi ay saafara ma sonn ci équipe nationale lool mu waroon maa mën a wone ma ah jaajëf kat waaye man defalu ma ko ko sama réew laa ko defal mais da di njiit yàlla fal ko mu war a reconnaissant affaire kumba am ndey kumba amul ndey bu ñuy wax man duma ko waxal ndax mënuma koo juger doon kilifa dangay am protocole ñu la naan tey lii ngay def lii ngay def loolu laa dégg de man xawma ca pale ba dara dëgg yàlla loolu laa dégg waaye li tax ma tegu ne day am troisième mandat ki sama gis-gis la lu ma sunu borom won la maanaam bi ma gisee xalifa sàll dem fekk Macky sàll kese moo toog ak mariyam fay ma waxaat ko Marième Faye dafa bëgg dara bu weex xam nga am na ay darabu coton yu weex yoo xam ne dafa dafa xaw a dëll nii mais day oyof moom loolu moom dugguma ca pale ba waaye xam naa ndaw si bëgg na ko lool euh, premier dame maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax moom bëgg naa ko après dinaa ñëw ci côté mais damay ñëw troisième mandat moom laa fekk moom ak Macky Sall ñu tegale ñetti kees kees bu ne mandat la kees yooyu fi ma ko teg Abdou Diouf laa gisoon muy wekk ci ay escalier yore kees man leen day wàcc day daanu ñi ma dëkkal ne ma du dëgg man leen day daanu boobu maa ngi dëkk jumaa Pullo Fuuta man leen day daanu boobu maa ngi dëkk ci Pantere damaa yàgg a wax da di xaw moon yoonu média xaw moon yoonu média pour wax ne lii day am waaye yàgg naa gis dama ko judduwaale bi ma amee xel toog wax ko mooy l'observateur dama dox ànd ak bi jaara aj dem l'observateur laa njëkk a dem dem la messager hmm, doo ko dem ci ibakan suñu làmp foofu la ma gindi léegi nag bu ñoom biñ toogee tegale seeni kees waxtaan ñoom ñaar gisuma seen xol yi de xaruma ko waaye ñoom ñetti mandat moo nekk seen xol bi kenn ku ne jël kaamil ma teg ci sama loxo ne ñoom ñaar Marième Faye Sall ak Macky sàll ñetti màndaa la ñu bëgg ci seen biir xol bi maa ko wax man Selbé Ndom li ma gis laa wax de waxtaanu ñoog man musuma dégganteeg Marième Faye sàll musuma dégganteeg Macky Sall kenn musuma leen a paas Mbaye Ndiaye xam ne lii may wax ne keroog ba mu defee euh, côté jamba di ñëw yëmba route de bañ koy sànni ay xeer mm-hmm. maanaam mbay njaay mm-hmm. xam na selbe bu baax keroog maa ngi woon ca cortège ba mm-hmm. damaa daw ba da benn dàll moom laa leen toppee yéeg ci oto ba euh, comme comme 404 mbaar yoo xam ne amul euh, kii ci ginnaaw 404 yi nga xam ne amul euh, kii ci ginnaaw ca ginnaaw laa yéegoon ñu dem ba gàddaay fu ne am naa fa ñoom ba ñu pare may doog a jël sama benn daal ñu gunge ko ba won ko yoon wi ak ma Assane la ak ñeneen ñu gunge ko ba won président yoon wi mm. boobu Macky Sall nekkul président ñu wàññeeku waa jëlaat oto Assane la wàcce ma sama buntu kër ma ñëw dafa am ci man loo xam ne kenn mosu koo am xëy na li ma gisoon mu doon président mu doon doon président moo tax ma ko doon accompagner di ko gunge mm. ñetti kees yooyu mm. ci la xalifa Sall ñëw sànni ñaari kees yi mu dugg ci pax quatre appi boobu mu def moom Khalifa Sall daanu moo waral mu dugg kaso fa am chance quatre ans la waroon tëdd ñaari oomu tànk yi la sukk jël ñaari loxo yi teg ko muy quatre appui yàlla ko may sax ni ko ñeent la naroon a tëdd yéenewu ko ko nag ku baax la ku yaru la digg naa ku tabe la ku dal la musuma koo tëg bët damay wax li nga xam ne rek tey da ngeen am am am chance sama rab waxi ñëw hmm? loolu la moo tax euh, bi mu këppee ñaari ñoom dañoo dañoo dese benn foofu laa teg ne day am troisième mandat teguma ko feneen ci àddina ñoom waxuñu ma naa ko wax ñoom duñ ma wax loo bu ñu sañoon sax du ma wax ñoom bu ñu sañoon sax du wax ci kii euh, du ma wax ci réseaux sociaux am na kilifa yu bëri yu naan ma doo bàyyi wax réseaux sociaux waaye sama numéro téléphone yi ma ciy joxe mooy 77 744 39 18 77 737 67 46 77 586 11 12 maanaam numéro yooyu ma ciy dugal moom la ma jaamu yàlla yi di woowe ñu nekk bitim réew ñu leen di nax ñu may soxla maanaam falaa koy dugalee ci émission yi pour ku ma soxla mu woo ma ma mën koo xoolal numéro yooyu ma ciy dugal man ci laay liggéeyee ndax ci lañ may woo ma di leen seetal moo waral may am lu ma añee ak lu ma reeree ak lu ma ndékkee ak lu ma yoree samay doom ak ngeneen ñu ci yàlla xëj moo tax ma ne dina am beneen mandat dina maa neexal su ma neexaloon te gisuma ko duma ko wax billaahi wallaahi wa lu ma gis la diguma diguma juróomi dërëm gisuma kenn ku ko jege waxuma ku nekk ca pale ba loolu laa gis. kon euh, xam nga Sonko. Hmm. Euh, bëgg naa mu wax ak euh, am na ku nekk France. Hmm. kooku daf maa won ne ma ba tuddatee Sonko te man tudduma Sonko ci dara. man xasuma Sonko waxuma Sonko lu ma ko war wax. yàlla def na ko yàlla may na ma loo xam ne man ku ma tooñ jotamaa yow dara te Sonko tooñu ma. Hmm. jërëma Sonko daal ku ko bëgg laa ndax Sonko daa julli ba ba am marqué fii ku ko xool xam ne jullit la macha allah macha allah barakallahu kenn du gis Sonko ba ne aboyu la du dëgg ku gis Sonko di nga xam ne kii ibadullaay la du dëgg maanaam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen aw ma dara lu may wax Sonko mais yàlla def na ko billahi allazi laa ilaha illa huwa gisaguma Sonko ci gént gisaguma ko Khalifa Sall gis naa ko mu yore euh, benn euh, valise valise euh, yooyu ñu yar def seen xaalis yi muy séentu drapeau Sénégal drapeau baa nga ca kaw waaye jotagu ko su ma gisoon mu dugg ci palais bi dama naan gis naa Khalifa Sall mu dugg gis naa Sonko mu dugg parce que lii lu ma suñu borom may la du loo xam ne nit a ko jox dama ko judduwaay dew ma ci kër kenn pour ma may ma xaalis xaw ma kër Sonko xaw ma kër Khalifa Sall xaw ma kër Macky Sall Mermoz xaw ma ko dégg naa Mermoz la dëkk waaye xaw ma këram li may dunde maa koy liggéey ñoom ñëpp kenn mayu ma ci dërëm yàlla laa yaakaar yonent bi sëñ Tuubaa kon bu ma kenn wooti naan dama di saaga sama waajur yi nga xam ne dañoo liggéey ba sonn waroon a fekk sama njëriñ te fekke wuñ ko di ma ci di di leen jàll ku ko def rek ma ne jël naa say waajur àdduna bee ma bëgg moo tax waaye kuy saa ku ne maa ndax saag yaay Fall la ñoom dofuñu ñu bàyyi di ma saaga sama waajur yi nga xam ne dañoo waroon fekk sama sama njëriñ ma yéene woon jël sama xéewal gi ànd ak ñoom ñaar ñëpp yóbbu leen makk ànd ak ñoom accompagner leen ñu def Safa ak Marwa tawaaf def la ñu war a def dem Medine ca bi loolu awmu ko ah nañ ma moytu ci loolu loolu bugguma ko am naa yaakaar ci yàlla subhanahu wa ne Macky Sall dina am troisième mandat li ma gis rek laa wax su fekkante ne am na nit ñi nañu xam ne loolu laa gisoon deuxième mandat wax naa ko euh, Macky Sall ma ma man binduma bindu ma naa. mais yow naa am na ñoo xam ne dañ naan ma mën nañ laa lijjantil. Mhm. dem nañ ci ñaar ñu jege euh, kenn ki mhm. euh, santam S la. Mhm. kenn ki santam Y la. maanaam falaa mën a yem ndax euh, damaa bëggul ku mu convoqué dik wala nga convoqué ma euh, euh, fële brigade de recherche ndax dama di kilifa sama doom bu jigéen bii su ma gisul day am problème ragalu ma nag kaso waaye damay bañ a tooñ tooñ tardé la jël sa bët teg ko ci nit du ma def loolu man sama bët dama koy teg ki yàlla suñu borom moo may jox dépasse yàlla may jox ndékki moo may jox ay moo may jox reer kon sama lépp dama ko wékk ci yàlla wékkuma ko ci kenn su ma ko wékkoon ci keneen damay taxaw ca buntu palais ba wala ma topp bureau ministre yi defuma loolu Macky Sall su ma bëggee gis dina ma gis su ma bëggut a gis maa ngi toog ànd ak yàlla ma ma àndaloon yàlla ma ma wanoon ay mbiram mu toog deux ans trois mois maa ngi ànd ak suñu borom boobu subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ko merle ba jox ko nguur gi waaye am naa yaakaar ci yàlla bu fi génnee ah yow yëf yi rang la de ci li ma gis am naa yaakaar ne Karim mooy toog am naa ci yaakaar ci yàlla gisuma nag Karim Karim mayu ma dërëm kay Karim diggu ma poste kenn ci ñoom koo xam ne digg na ma dara ndax mënuma dara yàlla rek moo mën yàlla nag moo may won may wax du loo xam ne maanaam nit a may neexal bu doon loolu man ma nekk présidente de la république du Sénégal bala ngaa laax jaay nga laax lekk ba suur maa leen gën a bëgg a yore Sénégal fuuf barkati laa ilaha illa muhammad rasulullah maa leen gën a bëgg a senegal Sénégal fuuf maa leen gën a bëgg a liggéey Sénégal fuuf waaye yàlla ñoom la dogal dama koy dama leen koy nangul ànd ak ñoom topp leen te gëm ne isa arada shay'an an yaqul kun fa yakun gisoon ko bu yàgg rek topp ci sama voyance te xam ne gisaguma kenn ku topp ci Macky Sall yéene naa nag ñëpp nag bon président bu ma soobee ñëpp a ñëpp a ñam nguur gi ñu def ko comme États-Unis cinq ans xaw quatre ans nga jóg keneen toog ñun ñëpp ñu ñam Sénégal mën a yegg mais ku ci toog rek mëbët liggéey yal na la yàlla mottali sa liggéey ah train bi mu fi xalaat baax na. macha allah sama buntu kër nag amagul tali canal bi solal nañu man maa jël ciment xale yu góor yi génn ma ne leen incha allahu rabbi canal bi nga xam ne day xeeñ ci koñ bi nekk sama buntu kër sama buntu kër amul làmp maa jël benn projecteur def ko sama ci sama buntu kër pour maanaam muy leeral ñi nga xam ne dañuy jaay jën di xëy suba teel di romb damaa yorut mais suma ma yoroon du ma ñaan kenn dërëm maay defar Sénégal ba mu mat su ma yoroon ni milliard billaahi wallahi watallaahi daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma ko namm te defaree ay ñi nga xam ne amuñu kër man jëndal leen defaral leen kër ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mootal leen fu ñu nekk ñi nga xam ne ñooy malade mental yi mootal leen fu ñu nekk di dem ci hôpital bi di leen di leen euh, euh, nemmeeku maanaam di jël ay garab di leen jàppale yàlla na xaalis ba lakk ba jeex tàkk yàlla bu ma ko fekkee ko am naa yéene ci sama réew bu baax a baax a baax a baax mais aw ma possibilité bi borom alal yi nañu xam ne bu ñuy judd indiwuñ ko bu ñu dee duñ ko yóbbu képp lépp loo mën a dimbalee sa sa mbokk doomu aadama muy jullit muy leneen xamal ne defaloo ko ko sa bopp nga ko defal ndax dalay jiitu sa bàmmeel nga xam ne ne ñëpp xam nañ ne on va retourner yaakaar naa ñëw fekk ñu tabaxal la sa kër gu rafet Cheikh Béthio am na kër gu baax de waaw waaw ma doomu Cheikh Béthio kat ñu ngi dëkk ci étage maa ngi dëkk ci étage ñu ngi tëdd ci lal bu nooy maa ngi tëdd ci lalu un million cinq cent ñu ngi naan ndox mu sedd am na bu dee asphyxie sax yor naa bu dee su ndaw sax maa ngi ko yor wala ma dem jënd fukk ak juróom glace bu paanee ma dem jënd glace fukk ak juróom def ci sama glacière di ko naan dama naan ndox mu sedd ko ñëpp. ku def lu baax am lu baax ñu jaamu suñu boroom ci def lu baax noonu la deme foofu laa teg troisième mandat bi may ñu ma dërëm nag woow ñu ma maa ngi toog ci sama daara ji may ñu ma passeport diplomate yóbbuwuñ samay doom te Macky sàll lool doy ko galax dimbale ma doy ko galax waaye nag ñu xaar ka ko jox mu yàlla man ngi koy xaar ki jox Macky Sall nguur gi may ko ay milliards mu am caisse noire mm-hmm. ah waaye kooku lay xaar man it maa ngi xaar yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek